kon nag yéen chef de yi dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd jàppale madame le gouverneur ba màggal gi benn benn fay bañ cee am dara bañ cee ñu am ko à 200 pour cent waxuma 100 pour cent mais ñu am ko pour cent waaw parce que wax dëgg yàlla dama gisee ni suñu xel dal na ci yéen xam nañ ni li ngeen engagé yéen ñëpp di ngeen ko def surtout AG route ñu sant bu baax di waxtaan ak yow xam na at yi weesu yëpp dañ la doon noppal rek ndax lu bari di ngeen ko defal ba noppi ci biir dëkk waaye amaat nañ fa ay soxla yoo xam tey si imam suñ barakar yi am na mbedd mu jëm këram boo xam ne dafa bëri trop suuf day yaakaar naa ni ci document bi loolu bëgg nañ nga nga nga nga ngeen jàpp ci ni ko madame le gouverneur waxee nga xam ne balaa magal gi ñëw da ngay ñëw def si sa liggéey ak voie de contournement bi même su ngeen ko mën a def ñu commencé ko fàkk ba nga xam ne oto yi dinañ mën a eh, dem ci jàmm ak salaam kon daal magal gi mi ngi noonu insha allahu eh, madame le gouverneur bi su faj aajo la eh, màggal la boo xam ku ci ñëw soxla boo am ci àddina boo ko ci fase suñ borom dina la ko saafaral na mu faje woon aajo ñu ànd na sëñ Tuubaa bi nga xamante ni eh, sëriñ bi feeñ na feeñ la ci jamono kon loolu mooy bis bi eh, di ci sant presse bi ci ànd gi ngeen ànd ak ñun mu ñu jógee Touba mu ñu jógee Dakar mu ñu nekk Louga yéen ñëpp gis nañu ànd gi ngeen ànd ak ñun ci liggéey bi ndax liggéey bi lu mu rafet rafet te tasaaroowul kenn mënu koo gis kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di sant loolu la jërëjëf. jërëjëf. ñu la waxal ñu la sant di jërëjëf euh, sëñ bi di dalal sa xel si sunu digganteek sunu waajur ma Madieye Fall ndax boobu ba léegi mu ngi jaabante démb rek la mujjee ñëw sama bureau ñuy waxtaan balaa ñuy jàmb bés bi ñëw na seet ma yëgal ma bés bi ñu waxtaane ko mu wax ma ci cër bu ci am ak taxawaayam mu dellu ñëwaat ñu waxtaanaat ci démb ci ngoon guddee na fi lool euh, ngir rek bés bi yemb bés bi mucc ayib kon nag ñu koy ci gërëm di ko sant ci taxawaayam te noonu la mësa mel ci secteur bu ne saa yu ñuy def CRD wala CDD taxawaay bu rafet la ci am kon nag euh, Paa Madiaye ñu ngi lay gërëm di la sat di gërëm ñëpp di ko tàmbalee ci xalif bi sëñ Cheikh ñu ngi lay yóbbante sunu ngërëm sunu sant si xalifu mbakke Kajoor comme niñ ko waxee woon si suba ndax euh, préfet ak sous-préfet seede nañu jàppale bi ñuy jàppale administration ni mu ñu yombalee sunu liggéey kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ziyaara di ko delloo euh, wàcce waay di ko jox wàcco waayam di ko delloo sunu feddale sunu kóllëre donc di leen gërëm di sant comité d'organisation bi euh, coordonnateur am Serigne Cheikh Thioro ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay ci ni nga leen ni nga yombalee administration bi liggéeyam boobu ba léegi commencé ci CDD bi ak yeneen édition yi préfet wax na ko sànq jàppale ngeen leen bu baax a baax ba nga xam ne su gàmmu Mbàkke Kajoor ñëwee wax dëgg yàlla xel yi day dal administration muy euh, euh, administration territoriale di service technique yi wax dëgg yàlla euh, ñoom ñëpp gërëm nañ leen sant nañ leen ci ni nga leen di yombalalee seen liggéey waxtaan bi nag question yu bari wax nañ ko fi lu jëm ci sécurité wax nañ ko lu jëm ci wàllum hydraulique assainissement wax nañ ko wax nañu lu jëm ci environnement wax waxu euh, lu jëm ci santé euh, service euh, yi nga xam ne mooy concessionnaire yi aussi ni ñuy jàppale ci organisation bi muy Senelec ak Sonatel yooyu yëpp ci tënk Sonaget également ñoom ñëpp wax nañu wax dëgg yàlla ci bés bi ban taxawaay lañ si mën a am ku ci ne nag jël nga sa engagement ne na nga xam ne noonu lañ ko daan defee danañu ko def lu ko raw danañ ko ci def ngir bés bi mën a euh, jàll ci anam yu rafet a rafet kon nag ñun tamit suñu wàll dinañ ko def muy bind circulaire circulaire boo xam ne dañ koy adressé service yi fi nekk yépp pour rappeler leen lan lañ fi waxoon ba nga xam ne ñoom it dinañu mën a respecter seen engagement euh, ca bés ba dinañu aussi jox instruction préfet sous préfet comme nañ ko daan defee année yi passé ñu assurer le suivi xëy na tey def nañu CRD bi mais aussi war nañu di waxtaanee euh, continuer communication bi ba nga xam ne bés ba bu ñëwee euh, yenn jafe-jafe yu bëri dinañu ko maytu am na ci yoo xam ne nag euh, tënk nañ ko fi yoo xam ne dépassé na suñuy compétence li jëm déjà ci Ageroute voie de contournement bi loolu wax nañ ko ñoom dinañ si dellu si waat ci seeni programme mais euh, route ba jëm yoon ba jëm Pekes foofu dafa ne dafa génn ci région de Louga euh, région de Thiès la nekk mais dinañu saisir suñuy naataango yi nga xam ne ñoo nekk région de Thiès ñu xool nan lañ ciy jàppee bu baax a baax a baax wax nañu ci wàllum euh, CSA loolu aussi ñun fii dinañ am liggéey bu am solo buñ ciy def waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yili fële ca kaw dinañ leen ko yeggee ba nga xam ne ñoom it la ca am war a war a am danañ ko def ñu wax euh, brigade de gendarmerie bi également loolu aussi dinañu ci waxtaan bind suñuy kilifa ya ca kaw ñoom ñu xool naka lañ ci jàppee ba nga xam ne la ngeen ca bëgg dana am incha allah di wax nañu aussi wàllum centre polyvalent bi nga xam ne euh, travaux yi dafa arrêté yooyu tam dinañ ko saytu liñ si mën a def dinañ ko ci def li nga xam ne nag jël jéggi na suñuy compétence dinañu ko euh, euh, dinañ ko yóbbee ñi nga xam ne ñoo ko war a saytu kon nag ci tënk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci bés ba mu am organisation bu mucc ayib ndax tey bii mooy suñu première organisation en tant que gouverneur de la région CRD bi nga xam ne moom lañ consacré euh, préparation euh, màggalu Mbàkke Kajoor kon nag dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne dinañ ci dugg ci euh, bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamina donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam waaw